faju na muy tey fàttalee li ñuy xàmmee nit aajoom faju na mooy dem ba mënut a génn ndigal dem ba mënut a génn ndigal su demee ba laaj ci ndigal biir ak bitti bu demee ba laaj ci ndigal biir ak bitti nga xam ne mënut a fexe ba génn ndigal nga xam ne mënut a fexe ba génn ti ndigal loolu màndargam faju aajo la loolu màndargam faju aajo la waaw bu demee dem itam ba mënut a gis sikku sikkus keneen mu ne bu demee ba mënut a gis sikkus keneen bopum rek la mën gis. Sikus rek la mën gis. sikkus boppam rek la mën gis. sikus bopum rek la mën gis. ku wax Shaqiq al-Balqi ku siw la nenañu waxon na ne danoo ñaanon suñ borom mu xamal nu luy tax am leeru bammel manam luy tax bu duggé ci suñ bammel rek fekk ko mu leer nañ nañ suñ borom nenu julli guddii julli guddii moy tax bu ngeen duggé ci seeni bammel fekk ko mu leer nañ nu sàkkuwaat ci sunu boroom luy taxa mën a tontu yaari malaaka yi laaj ci bàmmeel mu ne nu xanaa jàng alquran bari na jàng alquran mooy tax boo duggee ci bàmmeel tontu yaari malaaka ya yomb lool nu sàkku ci sunu boroom luy taxa mën a jéggi siraat bu gaaw a gaaw mu ne koor koor bari la woor mooy tax jéggi siraat bu gaaw gaaw yomb la mu ne it nu sàkku ci sunu boroom lu tax bu ëllëgee nu bokk ci ñi yàllay keral ca keruk aras ga sunu boroom nenu xanaa bari loo wéet di fàttaliku yàlla ñeme wéetaay wéetal yàlla kese mooy tax bu ëllëgee yàlla boole la ci ñamuy keral ja keruk aras ga foofee ca bis penc lii sëñ bi def na ko ay woy da ko di gis sax ñu bind ko ci yenn téere sëriñ bi na ko ci sëñ ba woye